Tongok, kugung, geging. Ah, ah. wah. Kita kita mak sagu. Wah. nanti ku ku mak ora mana. Oke. Wah, bang dan kota. Wah, di répété xaw répété wu leen. dégg ci li nga ganas yëf iya, du yëfi iya, lawbe de. dëgg dégg nga ganas. non du ëwaru eh, lawbe. ëwëru géwël la te dañu ne leen lu géwël lansoon na laal moom pa baleen ko fa faaje ko wooy leen baraamu rooja tarangar ma ja sama faay bi wutal na ma mee tekkal ma ko su ma teewul dinaa bon doom rat dab dabal ne ko nopp sa baay